tey li tax ministre yi waruñu leen tëj parce que waruñu leen tëj mm-hmm. parce que tey jii loolu amuñu droit tëj leen ndax loolu du article bu bokk ci réew mi mm-hmm. waaye sañ nañ leen def ni Yaya Jammeh daan def mm-hmm. Yaya Jammeh danaan dajale sëriñ si ñoom ñëpp ñu daje bu Yaya jàmme ne woon Sénégal ni yéen ñi woote woo sëriñ ak mën seet dama leen di dajale ku mënul dara ñu tëj la ci kaso bi bu wootee dina néew ñuy dem Sénégal ñi ma gis ci internet bii xamuñu dara wala ñi ci xam dara ñett lañ bu dee fukk juróom-ñaari yëpp ay trian duñ wax dëgg mbay sama téléphone bi xam nga ñaata audio ñoo ci nekk ci nekk ñu nekk Europe mm-hmm. ñoo xamante ni ñi leen yoreel ay xaalis ci sëriñ si ne Sénégal kenn xamul nu toll mm-hmm. solo wax kon dëkk bi tas déggoo ma de sama téléphone bii mm-hmm. li ci nekk ci ay nit yu nekk Europe fay ay sëriñ yu nekk fii mënatuñu leen a jot téléphone fenn bu ma leen ko génneloon àdduna mu tukki man lay neex rek ma kenn ni ko jote nga ak diw jote nga ak diw yoreel nga ko xaalis ñu négocier ñoom ñaar mais parce que yàlla dafa bëgg sutura waaye ñu nekk Europe bi kenn gënul leen a nekk ñu tëxët parce que jël sa xaalis di ko yónnee koo xam ne mënoo koo tëj lu dul nga ñëw ci réew mi uh-huh. lu dul nga nekk ci réseaux sociaux yi kalaame ko su dee jigéen ñi doxaan na su nekkee jabar jàmm ñu dox ñoom seetuñu seexlu wun uh-huh. fo rek moo leen neex uh-huh. ñu ci ëpp ndax du ñëpp am na ñu ci yiw am na ñu ci jàmbaar am na ñu jàngale mbay ñii dem boo leen dee seeteeti yow laaj leen ci looy seet nañ la ci lu ñuy seet mës ngaa seeti nit ah ci ñi ngay gis nii nga xool fu ñu nga fekkee fu ñuy seetee dañaa la dañu lekk ba suur ni président de la république am na lu koy metti mhm. diw bu moytuwul na faju ku la laaj loolu mhm. lan moo tax làmb ji di ñëw Balla Gaye Modou Lo wala Modou Lo Balla Gaye yooyu yëpp ay détails la yoo xam ne benn du ci dëgg mhm. mbay man mi maa la ko wax lu tax ñoom duñ toog ak mel ni ñun ci plateau yi. ay biisu ngoone la ñuy toog ak. wala déet. wax nga dëgg ak ñeneen ak ñeneen. mais ku ci wóolu sa xam-xam demal nga toog ak borom xam-xam. ngeen waxtaan. nga génneel ko ni ko nii laay seete. wallaahi dañuy daw. kenn ñemewu ci toog jotaay yooyu. mais ñun ñoo leen favoriser. Ah, ñu baal ma damay retourné wu parce que dama de jëli woon Oustaz euh, euh, Oustaz euh, Mbacke. Oustaz Mamour Mbacke. mu ne du fayeeku ci xaalisu télé. waaw mu ne du fayeeku ci xaalis mhm. télé du fayeeku ci xaalisu Oustaz yow nga ni nga nga wax fi ne. su bi ngay jàng da ko doon fay xanaa moom kon bi mu doon jàng fay. waaw da daan fay. mais ku ne xam nga man wax naa la ci sama njëlbeen wax. ma i la mbay man du ma fayee ko. man musuma fayeku duma fayeku fayeeku mais am droit fayeku aha am nga fay parce que dañe mom ñaanul yàlla di wax ci Serigne Touba wala ci wax ci mohammed wala di wax ci benen diine di fayeku ñu laj ko tax fi Futurs media day dina la day fay mu ne noonu suñ ma fayul sax baxna na. wuyu ma télé nak na la ah. xamal dara. Ah. télé. Uh-huh. télé ci bopam uh-huh. nit ngi fay liggéey ta fayekuul parce que coobare moko fa duggal kenn uh-huh. woowu ko. man sen TV gi dama fi am salaire. salaire bi dama fi am contrat. lolu banque lay parce que bari na ay retour yo xamantene fan yi dama koy am ñu naan mbay waxal ñu waxal ñu. ba defoon naa keroog vidéo mais partagé wu ma ko. parce que entreprise yu bëri dañ may woo ne ma fayeku ñu deux ans waa ngi nii fayeku ñu cinq ans waa ngi nii fayeku ñu xam loolu tamit dinañ ci ñëw. dama ni la. Mhm. ku mu neex sañ ngaa bañ a fayee ko ci yonent bi mais ku mu neex am nga droit fayee parce que da ngaa jàngoon bay. université. moo xanaa jàngul. waaw mais dafa jàng déggoo man la moom ban comme ça yëg-yëgam la wax. Mhm. bi mu am. Mhm. moom la waxee comme ça du bàkkaar du ñàkk bàkkaar. mais am na droit bañ a fayee ko. kilifa yu bëri woo nañ ma si am naa ay retour yu bëri parce que li mu waxoon déranger na leen. Euh, euh, ñu mu euh, parce que da leen critiquer yéen ñi nga xam ne da ngeen di dem ay ay am ay di di di fayeku di am ay di fayeku waaw moom nag mu ne loolu yëpp ah, moom du ko boroom xam-xam la sañu maa wax ci moom ndax yonent bi dafa ne al ulama warasatul anbiya yi mhm. mu ni boroom xam-xam yi ñoo doon na yonent yi mhm. kon kuy boroom xam-xam te ormal yonent waroo waroo waroo critiquer boroom xam-xam mhm. waaye li wér mooy am na droit bañ a fayeeku parce que am na feneen fu mu ko yaakaaree ñun am nañu droit fayeeku man moom du ma fayeeku mais mbay booy dem oto essence bi duñ la ko may. Mhm. mais nee a ci nga ci essence rek nee jox ma essence rek. non man moom balaa may dem ak koo mën a doon nga may wax ci tànt dama naan la yónnee ma essence. Mhm. yónnee ma. Mhm. enveloppe essence. bu ma paree nag lu ma fa jëlee. moo xam maa xam. mais ah. dama ni la koo fi gis. ci tubab da fay fayeku mhm. man duma fayeku kuma yoni ma kay tantal yonent bi mhm. mais amna mat bu toni ni parce que fi nit ñi dakar la euh, num mu tudd lan lay jappé mhm. bo yambaré la loxati ba nga jeex ñu wëri sa morom man kuma soxla ci tante dina la wax ni la duma fayeku mais ma essence am ci droit parce que sama auto bi six cylindre la buma ñëw ci tante ba nak ñaara fa dajé sac ak sec dina fi ba intéressant bop am fa sac buñ xey di sen programme bi neexna waye kuma keul ma rek ndewé gis uh-huh. ndax nga bass défar sa ay soutien defar say enveloppe tuddee ko ay kilifa ñu jox la xaalis bu bari nga faj ci say soxla waaye mbay nag man du ma nekk ci naaj bi nga ne ci kër gi bu doon gratuite nga def joxoo kenn invitation ma ñëwee gratuite ginnaaw def ngay enveloppe nag def ay invitation def ay soutien waaye ngelawaay la na buñ la mosalee mosal ma mbay <laughs> ah ñu wàllu réew mi ah, euh, réseaux sociaux yi Adji Sarr Sonko Adji ko Sonko actualité boobu loo si gis man nag nit du nit du ma bañ nit Mm-hmm. parce que yàlla dafa ne wala xadd karam naa bani aadama mm-hmm. waaye jikkoy aji saar daf maa soof lan moo tax parce que neexuma ni muy doxalee ah oustaz aji saar dafa war a am njaboot ci ci ci dëkk bi aji ah. saar dafa amut kilifa gu ko toppatoo aji saar du dem procès ba ànd ak papaam wala yaayam mm-hmm. ay député ay juge ak ay nangam réew mi du réewu defante est-ce que xam nga ni coowu aji saar ak Sonko buñ ko tegoon ci charia mboolem ko ci wax dinañ la dóor quatre-vingt yëpp parce que ku ni dëgg la te fekkee woo ko. Mhm. dañ lay dóor quatre vingt mais lan moo tax bi muy bi muy bi muy bi muy bi muy doog door euh, oustaz si juguñu wax si. xam nga lu tax. réew mi réewum saaga la. Mhm. xale yu bari connexion téeméer la ñu am. Mhm. balaa ñuy télécharger li xew seen connexion jeex. la ñuy xool dem commentaire saaga ji la. mag mu ci yow da ngay moytu wax. waaye dama wax ni. procès boo xam ne mu ngi def ñetti at ñeenti at. ci moom laam du moom. nanu bàyyeek yàlla ak ay jaamam. ba yombal xiyaam ñu xool. mais dafa am loo xam ne dafa dem ba ñàkk xorom ci réew mi mm-hmm. aji saar dafay wutal boppam ay noon mm-hmm. ñi koy jàppale ay xale yu ndaw lañ kenn topp ci digg ñi da ngaas mm-hmm. man bu doon may Sonko buñ ma woowatee du ma dem parce que am na yoo xamante ni xala ñaata nit ñoo fi dee ci ay wax yu ñàkk fayda ay détails suba ngoon guddeeg bëccëg ñaari fan ñetti fan ñu solol ko yére aji saar naan na procès bi dañ ko war a def nangam dañ ko def nangam aji saar sax li xamu ko mbay nit ñi bu nu caaxaane doomu aadama yi Sonko bu defé bàkkaar yàlla dafa ni wala tazirul waziratul wizra ukhra munoo gëm ni nit dañ ko violer ci kër go xamni borom kër ga nga fa ñu lay violer te yooxoo ni nañu bàyyi suñu xel yi ni fowe man faraluma Sonko voté luma Sonko ya ngi deg mais dama ni la bu deug de deug dañ ko wax man la aal min ko est-ce que du Dave Ndiaye bi nga nek la parce que gis nañu sa kilifa dafa euh euh Euh, keneen keneen. Sonko. waaw man bi may signé fii politique dugaluma fi. Mhm. Bougane faral ma ko sax ci politique. Mhm. man bis du ñàkk laa bokk Serigne Mansour Sy Djamil mooy sama Serigne. Mhm. Bougane li mu bëgg ci këram moom laa koy defal. mooy Mouhamed Mbaye kat. dama ko fi indi pour oustaz ngir tarixa yi ne ci réew mi kenn ku mën a waxal lu baax mu waxal la loolu moo ma dugal seen TV mais politique dugaluma seen TV sëñ Mansour Jamil buy dem di def ay politique am ak ay mitinam du ma ci dem xam nga ci lan laay dem ci gàmmu yi ak ci conférence yi parce que mission boobu la ma sant bu ma ko ko mënee defal moom mën a defal bugaan li ma sant te mooy ci diina ji kantaan ak bu doon dem bay xëccoo président de la république ñu ni ma tànnal bugaan ak Sonko koy tànn bugaan laay tànn ndax nit ki la dig ndékki jox la bu la diggee añ war nga koo gëm mhm. bi ma kenn falul moo ma fal fii mhm. tey bu ñu woon Sénégal la soxla damay bokk ci ni Bougane laay jàppale bàyyi mhm. Sonko wala déet mais dama ni la mënuñoo violer Adji Sarr foo xamante ni déggoo yuuxu déggoo aya ci ay waxi caaxaan normalement bu fekkonte ne dañuy dañuy lijjanti charte oto bi ko jël si ci jamonoy couvre-feu ñooñu war nañ leen a tëj parce que heure génn Adji Sarr li tax policiers yi bàyyi ko mu mën a déparé foofu ba egg fi mu jëm policiers yi ci yoon bi téyewunu aji saar laaj ko fan nga doo dem policiers yooyu tamit xanaa ci la ñu bokk dama ni la mbay réew mi nanu bàyyi caaxaan te mal fulla réew yëpp a ngi avancé ndax seen maam danoo liggéey ñun olof njaay nee na moo ñu tardeel te moom la ñu nar a ci biir suuf ah, ah, ñu ñu génn ñu gis euh, influenceurs yu bëri ñu ne nañ leen maye ñoom ñaar parce que dañuy fo rek. Uh-huh. man mi sax doon naa bokk ci li ko wax parce que Sonko dafa am sentimental wax ci Adji Sarr mbaax. Uh-huh. Uh-huh. Ah? parce que daf ko yërëm ci sama gis-gis. Sonko dafa yërëm Adji Sarr. parce que li tax mu yërëm ko mooy xale boo xam ne ay at a ngi nii mënta stable. mënta dem ngénte mënta dem fenn. même buy dugg ci mbooloo jigéen ñi féministes yi sax da ngay gis mu teg gerefaas boo xam ne pour nga xam ne Adji Sarr la du yomb. ñu jàpp ko di ko mel jigéen bu war a fonde njaboot. même ñu duggoon ci coow a rocceeku ne euh, gënoon na see euh, foncé dafa dem ba ne dafa dem ba commencé découragé. xam nga lu tax. waaw parce que preuve nee nañ preuve amul. mbay alxaqu yaalu wala yuxla alayhi niam fa munkiru alxaqi fi xusraani wa diini. Mhm. amul lu gën a kawe dëgg. mbay dëgg rek mooy dëgg. Mhm. xam nga tey jii ñi foogoon ne affaire yi dina egg fenn fi jotu faa egg. Mhm. ñu bari seen yaakaar moo ci tas. mais dama ni la. bu dee dëgg rek mooy dëgg ci réew mi wallahi faralu ma Sonko. faraluma président de la république faraluma kenn. man xam nga lu may ñaan bis bu nekk yasida mhm. président bi toog yàlla na ma yàlla may lu may dépense mbay. parce que François nee na euh, da ko doon jàppale si fond si xaalis boppam la ko doon joxe Californie si xaalis ñëpp ñu ko couvrir loon ñëpp nee nañ seen poste lañ ko doon financé fi mu nekk nii. gisuñu ku leen jàppale ci agriculture li jigéen di def ba ëmb ñu koy waxtaanee ci koñ bi. moroomu jigéenam mu ngi koy def da koo gën a yeewu rek. ak préparé boppam ba tax ëmbul. ma ne la sonkoo leen koy jiiñ. nangam nangam góor. xam nga sagam lan la. bëgg jigéen te teg ko ci siraatal mustaqim xam nga lu nu yàlla dik yow ma la xiyaam. ay óorul ay ni mooy ay jigéen. parce que xam na ni kon góor ñi danoo soxla ay jigéen. nanu bàyyi caaxaan yi te nu